mbokk yi alhamdulilah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ñu ngi santaat suñu boroom subhanahu wa taala mi ñu wërsëgal ñu dajawaat ci néegam bu tedd bi di fas yéene jël lenn ci njàngalem yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ca di ko sukkandikoo ci téere bi ñu tuddee bulughul maram ca alxaafiz ibnu xajar bind ko ñu toll ci li ñuy tuddee baabul faraid ca mooy buntu miiraas muy ñaar fukkeelu bunt bi ci li ñuy tuddee kitaabul bayuu ñu jëloon ci ay xadis ba war a jël tey xadisu 980 su dee ci mool bi ma yor mooy an jabir radiyallahu anhu anna nabiya sallallahu alayhi wa sallam qaal ida stahalla al mawlud warisa ñu ngi noonu baabul faraid ci xadisu jaabir bi kon desutu bunt bi aju ci wàllu miiraas xadis biñ ci jël mooy xadisu jaabir radiyallahu anhu anna nabiya sala ana nabiya ani nabiyi sallallahu alayhi wa sallam qaal ida stahalla almawlud su dee ne génne ne ak kàddu istahala mooy lépp loo xam ne kàddu gu kawe la gu mu génne comme la suñu borom di wax naan wa ma uhilla li xayrillaahi bi mooy kàddu ga ñu tudd ca ba ñuy rey ca du kàddu gu yàlla mi ngi jóge ci alhilaal mi weer wi nga xam ne dañ naan ma nga ne ma nga ne mi ngi noonu heure boo xam ne nii xale ba judd na daal di génne ak kàddu warisa su boobaa moom day doon aji donn mbokk ci li ngeen xam mooy suñu borom def ni képp koo xam ne faatu na ay doomam ñoo koy donn doom yooyu nag ba lislaam ñëwagul doom yi majeur daañ mën a jihaat doo nga daan donn xale yi ndaw yi daawuñu donn dara jigéen daawul donn dara waaye bi lislaam ñëwee suñu borom ni képp koo xam ne faatoo ci na bàyyi njaboot lam bàyyi lam néew ak lam bari yépp nañ ca jël cër bu ñu xam jox ko doom ya na doon ñooñu góor lañu wala ñooñu ay jigéen lañu suñu yenente sallallahu alayhi wa sallam ne lii nga xam ne mooy miraas yàlla doyloowu ci ab yonentam ndax bu aaya ba yemoon foofu rek kon yonent bi mën naa tëral ne waaw ku dee nañ ko jox lii keneen ñu jox ko lii waaye suñu borom moo détaillé détail boo xam ne nii amul benn xalaatkat buy dund tey lu dul ni day gis ne dara gënta maandu détail boobu yàlla détaillé commencé ci way jur yi lañu war a am doom ya lañu war a am la soxna ya war a am su dee nekkuñu fa frère ya lañu war a am baba fa minas ba di yem loolu nag kon waa ji bi muy faatu bàyyi na soxnam ëmb su boobaa soxna soo sey bis bu amee doom ba doom ja juddoo daa di génne kaddu jooy na tissooli na walla lum mën a doon kaddu gu jóge ci moom su boobaa day doon koo xam ne nii koy donn la kay tamit su boobaa la ñuy defal jullit ñi ci sangu koog jullee koog suul ko ca armeel ya dañ ko koy defal amma bu dee bi muy juddoo amul benn kaddu bu génne ci moom su boobaa dañ naan kooku moom du donn lu bari it ci borom xam-xam yi dañ naan dañuy gas rek suul ko duñ ko defal dara allahuma am na ca ñoom ñoo xam ne dañu ne maadaama bi muy juddoo dugal nañ ci moom ak ruux ku mel noonu mënees na ko defal la ñuy defal mag ñi ñaanal ko suul ko ca armeeri jullit ya amma donn gi moom balaa donn fokk ak dund feeñ gannaaw bi mu génnee ci biiru yaayam dund na ca loolu la ko daan màndargaal jamono ju jëkk ja mooy dégg nañ ko kaddu jóge ci moom xëy na suñ jamono yi mën nañ am yeneen nattuwaay waaye nag du tax ñu teggi li yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon mooy fokk mu am kaddu gu jóge ci moom kon kii baayam de mi ngi ci biiru yaayam mi ngi am wàll ci miraas bi ña nga xam ne ñooy donn suñu mënee xaar ba mu juddu ba ñu xam lu mu doon ñu doog a séddoo falilahi alhamdu bu dee dañuy yàkkamte it bokk na lu suñ mag ñi daan def nañ ko fi bàyyil ci rub góor bis bu amee doom bu dee nee góor la jox nañ ko cëram bu dee jigéen la ñu xaajaat cër ba séddale ko ñay doon waaye loolu it dañuy yóbbu ci ne su dee am na ay cheikh it ña jotoon a séddoo daañ cotiser waat delloo seen frère boobu lam yor ci miraas bi almuhim daal nañu xam ne ki juddu indaale bakkan mook boroom juróom ñeen fukki at bi ñoo yem képp ci seen alalu baay loolu lañu xadis bu jëkk boobu di jàngal amma xadisu ñaareel bi ki koy nettali mooy an amri ibnu shuaib an abihi an jaddihi qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam laysa lilqaatili min miraasi min almiraasi shay'un nee na ki rey day du ko ñeel ci miraas ba dara rawahu nasaa'i wa daaru qutni wa qawaahu ibnu abdulbarri wa aallahu nisa wa sawaab waqfuhu ala amrin ala kulli xaal xadis bi bokk solo nañu ko am nañu jàpp ne ma nga jóge ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am ñu jàpp ne amr moo ko wax ci xalaatu boppam doonte ne ay saxaaba lépp luñ daan wax ci diina ji day fekk ne yonent bi alayhi salaam moo ko wax almuhim boroom xam-xam yi am nañ ci ixtilaaf dëppoo nañu ñoom ñépp ci ne ki rey fekk moo ko tey na doon baayam la rey ak frère la rey ak doom la rey ak kum mën a doon kooku moom du doon loolu moom dëppoo nañ ci mu des nag ki rey ca teyu ko ki rey ca teyu ko am na ca ñenn ci ñoom ñu ni moom du donn du donn donte ne ni am na ñeneen ñu ni su dee gëstu nañ ba xam ne moo ko tayu ko su boobaa dana bokk ci ñuy donn ñi ne du donn bokk na ca lu mel ne mazhab ahmad ndax ñoom dañ ne bunt boobu buñ ko ubbee ne ki rey ñu ne daa tay tayu ko mu donn da nga gis ko yàkkamti léegi dégg bàyyam fa fexe daal di koy faagagal léegi buñ paree mun a tayu ko wala ku rey frère am waxe ñu ne tayu ko moo tax ñoom ñu ne mutlaqan ku rey du doon waaye buñ demoon lu mel ne mazhab malik ñoom dañ ne ki rey kay bu dee na gëstu nañ xam ne tayu ko tayu ko jigéen dana nelaw guddi wëlbatiku fanaan ci kaw doomam mu xëy dee loolu dañ koy gis doomu aadama dana nekk ci ay xeex am juum lu jóge ci moom mu rey keneen wala balu fetal wala kaza wala kaza ni ngi noonu loolu kon ñàkk a tey googee dañ ne du tee mu donn du tee mu donn allahuma lu dul nag bu dee dafay génnee la nga xam ne mooy diya ñu ne diya ba moom lu ca donn nga xam ngeen ko rey nit ca tey ca tayoo ko war ngaa génnee téeméeri giléem wala nga génne la nga xam ne nii mooy borom boromi xar ngeen ñaari junniy xar wala la nga xam ne mooy junniy dinaar almuhim su boobaa moom du donn ca diya ba waaye mbokkam moom rey dana ko donn loole da ngay gis ne bu ñu gëstoo ba xam ne dëgg-dëgg teyu ko loole duñ ko teg ñaari musiba musiba ba rey nit jege ñaaleem ci tey ko ba pare ñu xañ ko encore alal ja mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam ci wàllu googu bu dee ñetteelu xadis bi ki kay solo mooy wa an omar ibn alxataab radiallahu anhu qaal سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من دي ما دي قول ينتبه عليه السلام دي وخني ما أحرز الوالد awil walad lépp loo xam ne nii denc na ko ceg moomeelam wa way jur wala doom fa huwa li asabatihi man kaan kookee dana nekk ci wàllu geñoom lay ñeel ak kooku kum mën a doon rawahu abu daawud wa nasaa'i wa ibnu maaja wa saxahu ibnu almadini wa ibnu abdilbar mi ngi noonu ala kulli xaal lii da doon wax la indoon histoire bi ci koo xamee ne ni dafa am ko mu goreeloon mu ko goreelee xam ne nit ki boo ko goreelee yaay nekk mawlaam su bàyyiwul ñu ko donn alalam yow yaa koy moom am ci kenn nag koo xam ne dafa am ko mu goreeloon léegi bàyyiwul doom mu ñëw ne mooy jël alal ci te bàyyi na ay sët Omar na déedéet képp koo xam ne da nga faatu bàyyi alal sa waa géñu ñoo koy moom ca loolu biñ mujjee daje fii ci dimanche passé ñi ngi doon wax la nga xam ne mooy ndonog ulul arham mooy ndonog waa kër yaay ca boobu lañ ca waxoon mooy kii dee na bàyyi alal alal di ñi ko war a doon gisuñu ci kenn du ay frère am du ay baay taxam du ila axiri ñu ne kon bu fa amee nijaay walay tànta nañ ko jox ñooñu waaye day fekk amul amma bu doon tene ne am na benn doomu baay boo xam ne nii seen ñaari maam sax ñoo la seen maam bokk baay nga xam ne buñ ko xoolee càllale am na ci maam bu ñu daje nga xam ne ay góor rekk fi dox ku mel noonu alal ja bala ñu ko xool waa kër ndeyam di leen ko jox kookee lañ koy jox ak lu mu sori sori mi ngi noonu naka noonu it tamit da ngay gis ay sëtam lu ñu suufe suufe te wàllu ko góor ka ñoom lañ koy jox loolu mooy al asaba amma ulul arham mooy képp koo xam ne la tax mu bokk ak néew bi jigéen a tax say jarbaat mi ngi noonu yoo xam ne sa sœur moo leen jur wala say tante yoo xam ne say rakku yaay lañu wala say nijaay nga xam ne say magu yaay ila axiri mooy képp koo xam ne tax ngeen bokk jigéen a dox seen diggante ku mel noonu kenn du ko donalee fii ak ñoo ngi gis al asaba muy waa kër géejo gi te loolu it nekk benn xikma bu lislaam tëral ndax na ko jekk ay doomu baay dañuy yàgg siisante ay doomu baay dañuy yàgg iñaanante amma nag boo jàppee ne sama doomu baay yi kat tey ji bu faatu woon te bàyyiwul ñu ko donn alal ji mën naa dellu si ci man loolee dana wàññi iñaan googu nga xam ne bari na lool di dox diggante ay doomi baay mi ngi noonu bu ñu delloo ci xadis bi ci tegee waan abdullah ibnu umar radiallahu anhuma qaal qaal nabiyu sal allahu alayhi wa alihi wa sallam alwalaau la nga xam ne mooy ak féetewoo day luxmatun ka luxmatin nasab dafa nekk loo xam ne nii luy lënkoo la comme na ak mbokk di lënkoo laa yubaa kenn du ko jaay wala yuhab kenn du ko maye rawahu alxaakim min tariq alshafii an muhammad ibn alxasan an abi yusuf wa saxahu ibn xibban wa aallahu albayxaqi ala kulli xaal mbokku xadis boobu li muy jàngale rek mooy nit ki goreel benn waay jaamam la mu goreel ko yonent bi alei salaam nee na kookee dafa lënkoog moom lu mel ne ak mbokk moo tax kenn mënu koo jaay ndax suñ jaay am na ñoo ci waay na ko kat sama mbokk gi ma bokkoog famitel kaay ma jaay la ko yow nga bokkoog ñoom ndax loolu mën na nekk déedéet kaay ma may la ko ndax mën na nekk déedéet ak mbokk yàlla koy dogal kenn du ko jënd kenn du ko may fa nga bokk fa nga bokk jeex na bal lislaam dafay araamal nit ki di féetewoo beneen famille bu dul famille boppam noonu la nga gis benn waaye dagg fële na man njaay laa sant fekk leneen la sant yaa ngi dégg pour bëgg nit ñi fonk ko di na doon kookee muy tuddewoo ab sëriñ laam ab kilifa laam ab nangam loolee ci bàkkaar yi gën a garaaw ci la bokk kon naka noonu nit waa ji goreel ab jaam moom mooy wëliyoom loolu nag kenn du ko doon ay bu ñu fekkoon ne dafa doon koo xam ne nii faatu na ca ki nga xam ne moom la nekkoon waliyam faatuwul loolee bu faatoo doom yi duñ ne ñun kat sunu bàyyi moo doon waliyam dañ koy doon loolee mi ngi noonu naka noonu it kenn du ko maye comme ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxee ci wàllu googe amma bu dee xadis ba nga xam ne nii mooy xadis bu mujj عن عن قلابة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفردكم زيد ابن ثابت من xam leen yéen saxaaba yi ki ci gën a xam miiraas mooy Zayd ibn Thabit mi ngi noonu ca Zayd boobu gis nañu ne bokkoon na ci ñi daan bind Alqur'an daan toog ci kanamu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca keroog bi abu bakarin saddiq bëggee dajale alquran it moom la santoon moo jiite woon commission bi bi doon dajale téere bi yàlla bi radiallahu anhu yonent bi alei salaam nag ne moo gën a xam miiras ndax bokk miiras xam texte yi doyul à part texte yi dafa laaj ak ñor ndax bari na ci ay calcul yu ci am bari na ci ñuy mën a jege yoo lool ca seeni cër du bokk ak yeneeni laaj yoo xam ne nii tey mën na caa am yoo xam ne nit ki mën ngaa xam texte yi waaye boo moytuwul dang ci mën a mën a daanu mi ngi noonu tey jii da ngay gis bokk na ci rek ay yenn misaal yuñ ciy wax bu ñëwee kii kat moom dafa doon ko faatu mi ngi bàyyi benn magu papaam ak la nga xam ne nii mooy benn frère am ak la nga xam ne nii mooy benn doom bu jigéenam loolu da ngay gis ne bu dee ne ci dañ la ko wax noonu rek fokk aji miraaskat ji laaj frère bu moom frère lu mu doon frère lu mu doon su dee dañ ne kat frère bi ñoo bokk ndey rek lañ bokk mu ne kon kooku moom du doon ndax doom bu jigéen fi kon du doon bu dee ne dañ ne nag frère bi léegi do ñoo bokk baay wala ñoo bokk ndey baay ñu ne kon hey kay di magi baay yam bale kon moom du doon ndax frère bi day jël mbiram amma bu doon mag frère bi ndey rek lañu bokk su boobaa da ngay gis ne sœur bi moo jël genn wàll magi baay ba jël genn wàll loolee kon ay mbir la yoo xam ne moo tax nit ki mën nga xam texte yi waaye nag gannaaw texte yi it dafa laaj la nga xam ne muy ak ñor ak ay question yu bari yooyu posé ñi nga xam ne ñoo ñëw jël laaj miraas looloo tax problème miraas du lu ñuy dégg nii ci waxtaan rek daal di ne da nga koy appliquer fokk heure boo xam ne yàlla nattu na la ko te mën na am léeg-léeg mën ngaa dund ba dee sax doo am problème miraas wala buy am benn yoon lay doon sëg dund fokk nga dem ci borom xam-xam ngeen toog nga xamal ko ne kat sama bàyyi nii la bàyyi ciy mbokk moom dana la laaj ay laaj laaj la ay laaj ba dajale yépp xam ne ñii ñoo war a doon ñii ñooy fekk ña ca des ñii ñoo war a bokk ila axiri loolu nag moo taxoon yonente bi alei salaam di wax ne xam leen yéen sahaaba yi ki ci gën a mokkal wàllu miraas mooy zayd kon ku ci am problème miraas na dem seeti ka nga xam ne mooy zayd bokk loolu moo aju ci bunt bi ñu jëkk bi ñuy jël tey nga xam ne mooy tëj bunt boobu nga xam ne mooy bunt miraas donte ne bunt bi ci toppit sorewul ak moom ca mooy buntu dénkaane alwasiya doomu aadama bi avant ngay faatu ci dénkaane yi nga xam ne da nga koy dénkaane mi ngi noonu
الباب الحادي والعشرون باب الوصايا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده متفق عليه وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة أفأتصدق بثلثي مالي قال لا قلت أفأتصدق بشطره قال لا قلت أفأتصدق بثلثه قال الثلث والثلث كثير إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس متفق عليه وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي استلفت نفسها ولم توصي وأظنها لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها قال نعم متفق عليه واللفظ لمسلم
kon mbokku bunt bi mooy buntul wasaaya mooy buntu dénkaane bi dénkaane xa mu ne an ibnu omar radiallahu anhuma an rasulullahi salallahu alayhi wa sallam qaal mu ne yonent bi salallahu alayhi wa sallam day da doon wax ma xaqu mri'in muslim ay nekkul di yey ci benn nit ku góor koo xam ne julit la lahu shay'un yuridu an yuusiya fiihi mu am lenn loo xam ne bëggoon na caa dénkaane yabiitu laylatayni muy fanaan ñaari guddi illa wa wasiyatuhu maktubatun inda lu dul ab dénkaane mi ngi nekk du lu muy bind ci moom muttafaqun alayhi mbokk kon xadis bi nga xam ne mooy alwasaaya ca mooy tabarro bil mal baad al mawt nit ki lam mën a génne ci alalam fekk faatu na ba pare di xéewal gu yàlla defal jullit ñi ngir ñu mën a yokk seeni tuyaaba yonent bi alei salaatu salaam dani koo xam ne nii day am nga loo war a dénkaane sa gannaaw waroo koo yeexe ñaari guddi yoo xam ne nekkoo di aji ku koy bind lu waral loolu mooy doomu aadama bakkanam ci loxo yàlla la nekk sa bakkan nekkul ci say xalaat man ngaa ànd ak wér gu yaram yàlla subhanahu wa taala ñëwee ki mbiram loolu tax mu ni soo amee loo war a def wasiya na nga ko bind bind boobu muy leen ci bi daneen na doon lu ñu bind mën nam yaa ko bind mën nam kenn ñu ko bind su dee nekku leen fu ngeen mën a bind it man ngaa am ko wóolu wax ko ko su ma dee dey sama alal ji bëgg naa ngi def ci nangam ak i nangam loolu mi ngi noonu allahuma wasiya boobu borom xam-xam yi dañ koy séddale am na ci loo xamee ne nii moom farata la te mooy àq yi nga xam ne da nga koo gàddul nit ñi ca nga ragal ni soo dee nit ñi mën nañ ko bañ a xam mën ngaa dem sum dëkkandoo àbb ko cent mille francs mu abal la sa digganteeg moom rek la war ngaa bind ne diw yoral naa ko cent mille francs koo liggéeyloo ku loo ki nga ki la doon liggéeyal fayoo ko mi ngi noonu soxna si nga desaloon ca can ga yooyu yépp mbir la yoo xam ni dafa nekk wareef jurit moom di ko bind ngir wax la nga xam ne mooy la am dana ci am yoo xam ne nii islaam da koy araamal mooy bépp wasiya boo xam ne da nga cay jeng fekk ña waroon a doon nga jël leen jox leen leneen lu bokkul ak la ñu war a doon na ci wasiya bi loolu comme niñ koy nar a jàng ci kanam comme it la nga xamee ne nii dafa nekk di lor say mbokk asalan lu ëpp ceer loolee kenn du ko def te wasiya mu am ci yoo xam ne nii lu ñu sopp la lool mooy yàlla wërsëgal na la alal alal jooje nga la waay heure booy faatu war nga def wasiya te ña nga xam ne du ñu la donn ci say jege ñaale ak say wëllëre nga ne bu ma dee dey nangam nañ ko jox diw nañ ko saxal ci diw loolu mbokk da ngay gis lenn ci borom xam-xam yi sax dañu naan su dee ne jegeñaale yi sës ci yow la nga xam ne ñoom duñu doon masalan tey jii boo xisee ba am benn doom bu góor rek da ngay gis ne sa mboolemi frère dootuñu doonati même bu ñu bokk ak yow ndey ak baay mi nga noonu magi papa yaag nijaay nijaay yaag bàjjen yaag kenn dootu doon même boo doon milliardaire nga ñooñu nag nga xam ne yaa ngi leen doon def teraanga suñu borom moom lay wax ne al wasiyatu lil walidayn wal aqrabin mi ngi noonu xaqan alal muttaqin ñoom ñu ne kon loolu àq la ay farata la nga def ko allahuma lu dul way juri yàlla mujj na leen a jox seen cër ci miraas bi kon ñoom kenn du leen defal wasiya bokk na ci loo xam ne ni it lu ñu sib la waa ji li nga bàyyi ci alal bariwul ba pare nga wëlbati ko nag dem di def wasiya ba nga xam ne say doom presque duñu duñu duñu doon lu ci yow loolu da ngay gis ne mbokk lu ñu sib la almuhim mi ngi noonu ci jullit war a xool moom fan la ci toll mu jëfe noonee su yàlla yaatale alalam mu def wasiya buñ ci jëlee kenn ku ñu naan Saad ibn Abi Waqas mbokk bokk na ci loo xamee ne ni nit ñi dañ koy jëflante ci wàllu adresse yi ak wàllu këyit yi looloo tax jàkka yi ñu utal leeni tur da ngay dégg masjidu Abu Bakar masjidu Omar masjidu Quba masjidu Nabawi ila axiri looloo tax Sénégal it lu ci bëri ci jàkka yi sunna yi gaa yi utal leen ay tur loolu moo jur sunu jàkka ji ñu tuddee ko Saad ibn Abi Waqas jàkka ji sunu mbokk Ousmane Gallaajo di jiite ñu tudd ko Abu Ubayda ibnul Jarrah ba sunu mbokk imam Abu Bakar di jiite ñu tudd ko Omar ibnul Xattaab ala kulli xaal Saad ibn Abi Waqas bi gis nañ dafa bañ demee ca Makka ci bi yeneen bi ubbi Makka yàlla da ko fa nattoo benn feebar mu ne ah yow mi yàlla yónni ragal naa feebar bi dama ciy faatu ca man bàyyi naa alal te benn doom bu jigéen rek laa am dama bëggoon sama alal mi ngi noonu yaakaar naa jànguñu ko de jànguguñ ko waaw kon day wax ne wa an saad ibnu abi waqas radiyallahu taala anhu jële nañ ci saad qaal qultu ya rasul allah ana zumaal ayyami yàlla man day borom alal la laa yarusini illa ibnatun lii waahida duma donn lu dul benn doom bu jigéen moo xam ne kenn rek la afa atasaddaqu bi sulusay maali ndax mën naa sarxe sama ñaar ci ñetti ci alal ay bu doonte ne ñetti junni la ndax mën naa sarxe ñaar ya qaala laa qultu afa atasaddaqu bi shatrihi mu ne kon ma sarxe genn wàll ga qaala laa qultu afa sad atasaddaqu afa atasaddaqu bi sulusihi kon ma sarxe ceer ba ay benn junni ba qaala sulus yeneen tamit waaw yemal ci ceer bi wa sulus kasiir doonte ne ceer lu bari la innaka intazar warasataka agniya mu ne ko yow de boo bàyyee ñi lay donn ñu doon ñu woomle xayrun min an tazaruhum alla moo gën nga bàyyi woon leen ñuy aji ñàkk yatakaffafuuna naas di tàllal ay loxo ci nit ñi muttafaqun alayhi mbokk kon saat mi ngi nii feebar yow mi yàlla yónni sama alal ji de benn doom bu jigéen mooy doon léegi nag li mu bëggoon mooy xaaj ko ñetti xaaj ñaar yi ma saraxe ko bu ma dee sama mbokk jël ko waaye mi ngi duggoon ci baatu wasiya am na beneen xadis di naan ndax du ma dénkaane yonent bi na ko déedéet loolu bu ko def mu ne ko ah yow mi yàlla yónni bàyyil ma ma sarxe boo genn wàllu alal ci ci saxaaba yi xër gi ñu xëroon mu ne ko même loolu bu ko def mu ne ko waaw kon bàyyil ma sarxe ceer bi bokk mu ne ko waaw mën nga sarxe ceer mais ceer bi sax ëpp na ceer bi sax ëpp na xamal ni sood sa njaboot nga bàyyi leen ñu doon aji woomle ba boo dee du ñu tumuranke moo gën nga bàyyi leen boo dee ñu dem di ñaan nit ñi ñu ngi noonu loolu moo tax ba li yonent bi alayhi salaam ne ceer bi sax ëpp na boroom xam-xam yi dañ naan wasiya la ca gën mooy la gën a bari na doon kaar ba bàyyi nga 4 millions 1 million ba am nga droit santaane ci lu la neex bàyyi nga 4 milliards 1 milliard ba nga santaane ci lu la neex allahuma ku mel ne abubakarin saddiq radiallahu anhu mi ngi noonu moom gis nañu ni juróomeelu alalam la bay la la joxe li ñuy tudde alxums ndax la suñu borom di wax naan waalamu annama ganimtu min cheyin fa anna lillahi xumusa lu ngeen gañe ci guerre bi nañ jël un cinquième bi yóbbu ko trésor public moom mu ne kon li yàlla gërëm loolu laa gërëm sama bopp dafa noonu bu dee alal ji nañ ko xool cinq millions la nañ jël un million def ko fa nga xam ne moom la santaane loolu itamit da ngay gis ni bokk na la gën a rafet gën a rafet wala yàlla dénkee alal alal joojee ngalawaay nga bàyyi ca loo xam ne dana doon ab sarax boo xam ne tant que yaa ngi dund yaa ngi jëfandikoo ci alal ji jënd jaay dugal génn jënd am naa ne gis boo faatoo un cinquième ba nga jël ko delloo ko la nga xam ne ci liggéeyu bi lislaam lay doon wala ci say jegeñaale wala ci say kóllëre loolee bu ñu delluwaatee ci Saad ibn Abi Waqaas moom gis nañu ne yeneen ci lislaam dana ko woon déet Saad da ngaa foog da ngay fiy faatu déedéet doo faatu te fekk amoon na lu ko naqari lool ndax daa gàddee woon Makka dem Madina léegi ñëw màkk mun a rafaatoo màkk kon day mel na gàddaayam amul valeur mun na ko déedéet doo faatu yow yàlla dana lu dundal ba yàlla jëriñ ci yow mbooloo mu bari lor ci yow mbooloo mu bari ca na am saat boobu gis nañu ne yàlla mu ñu ne ko dundal ci ñu doon ubbi ay perse ak ay dëkk yu bari ci àdduna bi ca la bokk nekk jàmbaaru lislaam di jaar ci loxoom ba dugg ci lislaam kenn xamul nu mu toll avant muy faatu ca it na ko yonent bi waxoon avant mi faatu bàyyi na njaboot gu bëree bëree bëri gis ngeen radiallahu anhu kon mbokk loolu mooy loolu amma xadis bi ci tegee mooy xadisu suñu yaay aisha radiallahu anha anna rajulan ata nabiya sal allahu alayhi wa sallam fa qaal ya rasul allah ayumi yàlla yónni inna ummi uftilitat nafsuha sama yaay de dañ ko bette ci bakkanam ay dafa dee deego betteel walam tuusi ca dénkaanewul dara ci alalam wa azunnuha law takallamat tasaddaqat ca jort naa ne sama yaay bu mënoon a wax kon doon na dénkaane ci alalam afalaha ajurun in tasaddaqtu anha ndax dana ko ñeel fay bu dee ne dama koo sarxeel qaala naam mu ne naam boo ko sarxelee dana ca jot muttafaqun alayhi loole buxaari muslim solo nañ ko wal lafdu li muslim nii la ko muslim solo kon mbokk kii day ñëw ci buntu wasiya la ba tey mu ne man kat sama yaay dég betteel da koo bett ca jotul dénkaane ci alalam dara te xam naa ne sama yaay bu doon daa feebar ba jort na day dee dana dénkaane ci alalam ca loolu it di mbaax goo xam ne moo ko seedeel yaayam te jëlit bu nekk war ci bàyyi xel allahuma mbokk nañu xam ne dénkaane su ma dee ñu def nangam taxute dee taxute dee loolu ñu bàyyi ci xel bu baax daanañ leen ko wax toujours boo xoolee dama mas a toog ak sunu mag Cheikh Souleymane Gueye loo xam ne ni yàgg na lool muy jàngale bunt yi demee nii mu jox ci mi nit ñi misaal daa di génne la nga xam ne mooy ab testament daa di koy won nit ñi loolee itamit da ngay gis ne gis ngeen li ngeen gis fii day mooy liñ ci bind mooy ab testament lañ ci bind mi ngi noonu loolu pour wone ne doomu aadama bi mooy bëgg nga ne ne su ma dee nangam ak i nangam loolu taxut a dee man nga koo bind juróom-ñeent fukki at teew ngay dund loolu ñu bàyyi ci xel bu baax te it lu la ci neex changé bind ko rek du tax da laa engagé lu la ci neex changé soo ko waxoo ni nit it lu la ci neex man ngaa xëy ñu leen hey damaa leen waxoon su ma dee ngeen def nangam ak nangam de bàyyi leen loolu def leen nangam ak nangam loolee kon mbokk amul problème moo tax mu ne man day sama yaay dee da ko bett waaye xam naa ne bu ko dee bettul woon dana wax ñu def njekk ci alalam waaw léegi nag bu dee man maa cooberoo jël alal sarxeel ko ndax loolu dana ci jot yeneen ci bàyyi saam ne ah kay dana ci jot loolu mboole ñu borom xam-xam dëppoo nañ ci ci ne doom bu génnelee sarax way juróom dana ci jot am na ci it ñoo xam ne dem nañ ba ne gannaaw sarax it bépp jaamu yàlla dana ci jot loole moo tax ñenn ñi ubbi ci ay buntu ci njàngum alquran ak ay yu deme noonu allahuma ña ca gën a diggu doomu dañ ne ya ca yonent bi saxaloon dana ca jot yonent bi saxal na boru koor bu mu amoon saxal ne at goo koy ajal wala umra joo koy umraal sarax it moom ñëpp dëppoo nañ ci bu dee doom la mu des it beneen ixtilaaf bu ñu am bu dee ne nag du doom ndax doom li muy liggéey moog waajur liggéey ko benn la yonent bi alayhi salaam nee na al waladu min kasbi abi doom waajur moo ko faggu am maa nag bu dee keneen moo ko def loole it am nañ ca lenn ci ixtilaaf allahuma lu dul yooyu yonent bi saxal bu ko keneen defee dana ko jot lu mel ne sarxeel ko sa mbokk la sa xarit la su ko mën a doon wala ajal ko mi ngi noonu loole da ngay gis ni lu mën a nekk la wala boru koor boo xam ne da ko bàyyi woon koor googee nga wooral ko ko loolu la yonent bi alayhi salaam di wax naan ku bàyyi boru koor saamaanhu waliyuhu ila axiri almuhim daal mooy liñ ciy déggee yow mi am way jur ngalawaay loo man ci di leen sarxeel xamal ne loolu dañ ci jot ñu ngi may wax benn mbokk boo xam ne fii ci unité 19 la tabax benn immeuble R plus 4 ne jagleel na ko ay way juram yu faatu nañ ko luye miraas luñ ci luye nañ ko yóbbu daaray kokki bokk loolu lu am solo la gis ngeen mooy immeuble bi immeuble am la waaye nag nee na bu ko kenn jaay bu ko kenn donn luñ ci luy dañ ko yóbbu ca daara ja loolu kon dañuy gis ne mu ne jagleel na ko ay woy juróom loolu it doomu aara bañ ci xeeb allahuma lu dul nañ xam ne la gën a màgg la ñuy jagleel woy jur yi mooy ñaan ndax suñu borom yonente alayhi salaatu wasalaam nee na nit ki bu faatoo ay jëfam daañ ko dagg ba mu def xam-xam ba mu jàngale woon sarax bay wéy gannaawam ca wasiye bi ñuy wax ca la bokk mi ngi noonu ak doom ju baax ju koy ñaanal loolu moo tax la gën a màgg lu doom di defal way jur mooy ñaanal ko gannaaw ba nag mën na koo génneel la nga xamee ni nii dafa aju ca la nga xamee ni nii ay sarax la mi ngi noonu dafa mel ne sama kaset bi moom dafa rëcc ñu ñu jàng noonu rek xadis bi ci tegee xadis bi ci tegee mooy wan abi umama albahili رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من ديما دق ينتبدي وخني إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه يلا جخنا كيبكو أم أق ميراث يلا جخنا أقم fala wasiyata li waaris kenn du dénkaane ñeel aji koy donn rawahu ahmad wa arbaa ila nasai wa xasanahu ahmad wa tirmisi wa qawaahu ibnu quzayma wa ibnu aljarud ala kulli xaal mbokk xadis bi lim ñuy jàngal mooy bu dee wàllu nit ki faatu na la alal ja ñam war a dem suñu boroom tudd na leen détaillé na lañu war a jot mi ngi noonu loolee da ngay gis bu doonte ne ne bàyyi nay way jur automatiquement ku ne dana am benn ci juróom benneelu alal su dee dafa bàyyi doom amul benn doom ay waa juróom rek ñoo fa ne suñu boroom ne nañ ko xaaj ñetti xaaj bàyyi jëlal ñaar yaay jëlal benn ba dana am nay frère kon yaay jëlal benn bàyyi bàyyi jël juróom yépp doom ya naka noonu ku nekk yàlla détaillé na ko soxna yi it suñu boroom ne su doom amul na jël kaaru alal ji waaye bu doom amee na jël huitième alal ci ndax nag nit ki am nga droit ne bu ma dee day sama kër sàngam nañ ko jox sama yaay walla sama oto sàngam nañ ko jox sama dum diw walla sama tool sàngam nañ ko jox sama baay loolee déedéet jamono bi ngay dund de man ngaa may ku la neex su dee ak jëng amul ca ci sa diggante ki doom comme nañ ko jànge woon ci xadis Nu'man ibnu Bashir amma nag ne su ma dee nañ def nangam ak nangam loolee mbokk da ngay gis ne islaam du saxal loolu du saxal loolu allahuma lu dul su dee ne njaboot gi daje nañu xam nañ ne kat bàyyi juum na ci kër gi mu ne nañ ko jox diw ca day donn waaye nag ñoom ci seen coobare ñoo nangu jox ko ko loolu moom beneen mbir la waaye bu dee ne kenn bañ na ca rek àqam moom dañ ko ko jox ba mat sëkk lu tax mooy képp koo xam ne bokk nga ci ñi donn kenn du la defal wasiya amma ku lu dul donn nag mën nga koo jagleel sax lu ëpp la say doom di donn ngi noonu sa benn frère ngi ni am ngay doom lu ñu donn bàyyi woon nga tey ji lu mel ne trente mille nga ne dix mille bi bu ma dee nañu ko jox samay sama frère te fekk ñi ci des bu ñu donnee du ñu am dix mille loolee kon mën na nekk waaye képp koy donn moom kenn du ko boole ci testament ndax yàlla jox na ko cër ca yàlla moo gën a xam amma xadis bi ci tege mooy naam moom la wax rawahu daaru xoti min xadis ibn abbas radiallahu anhu waaw kon ibn abbas moo ca dolli wa zaada fi axirihi illa an yasha al warasa mooy su dee ñi ngi doon ñoo ci d'accord xayrun waaye bu dee d'accorduñ ci loolu kenn du ko appliqué xadis bi ci tegee mooy wa an muaz ibn jabal radiyallahu taala anhu qaal qaala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam inna allaha tasaddaqa alaykum bi sulusi amwalikum inda wafatikum yàlla sarax na leen seen ceeru alal ci jamono bi ngeen di faatu ziyaada mu nekk ak ndollal fii xasanaatikum ci seeni yiw rawahu daaru qutni wa axrajahu ahmad wal bazzar min xadis abi darda lii day dellu rek ci liñ jot a jàng képp koo xam ne yàlla dénk na la alal ceeru alal ja am nga droit ci ne bis bu ma dee nañ ci def nangam ak i nangam ca loolee nga ca waxtu ba ja ci juddoo yépp da lay fekk si loolu di sarax bu doo suñu borom sax sarax nit ki ci avant muy dee amma xadisu bi ci topp te mooy bi ci mujj ci buntul far wasaaya wan ibnu maja min xadisi abi hurayra moom day wax ne radiallahu anhu wa kulluha daifa lakin qad yuqawi baaduha baadan kon kooku moom day wane rek ne xadis bi am na ñeneen ñu ko solo doonte ne ni am na ca ak lompañ gu ca am waaye lu nekk dafay doon luy dëgëral moroomam ala kulli xaal même bu xadis bi wérul woon it day wane ne la yonent bi waxoon saad day saxal ne ku ne am nga droit sa teeru alal nga def ci lu la neex ci ne bu ma dee nañ ko tëral mën nañ jeexal bunt bi de benn xadis ngir buñ fi dajawaatee dem ci la nga xam ne moo ëmb daanaka genn wàllu lu aju ci wax ci wàllu fiq te mooy séeg la ci aju kii mooy baabul wadia an umar ibn shuaib an abihi an jaddihi radiallahu anhum an nabi sallallahu alayhi wa sallam qaal kii moom day wax ne yonent bi nee na man uudi a wadia koo xam ne dañ koo dénk ak dénkaane fa laysa alayhi damaan kooku du war ci moom benn garanti bu muy garanti loolu axrajahu ibnu maaja wa isnaaduhu daif wa baabu qasmi sadaqaat taqaddama fi axiri zakat donte ne lu demee ni mu ne romboon na ca ba ñuy jàng affaire azaka yi wa baabu qasmi alfay wal ganima yaati aqaba aljihad insha allah mu ne la nga xam ne nii moom mooy bunt bi jàngale lañ gañe ca guerre ya ak la la nga xam ne moom la ñu delloo yonent bi alayhi salaam alfay u mooy lépp lu ñu gañe ci xeex amu ca alxanima mooy loo xam ne dañ jihaad doog caa jot mu ne loolu lépp dana ñëw ci buntu jihaad almuhim mbokk lii di wàllu dénkaane nit ki bu dee dañoo ñëw wóolu ko dénk ko dara loolee ñu ko dénk yi am lu ca yàqu amu ca benn garanti allahuma lu dul li ci borom xam-xam yi di wax mooy fekk mu bañ koo saggani amma bu dee ne wér ne na moo ko saggani kaka ka dénkoon am na droit wax na ko fay waaye bu dee àq bañ dénkaana ba yeyoo def na ko kii tukki na dénk la am xaram yaa ngi koy jox mu lekk di ko jox mu naan ndogalu yàlla ñëw mu dee su boobaa amu ci benn mbir amma bàyyi nga ko joxoo ko mu lekk joxoo ko mu naan ba mu dee ci loolu kooku yow yaa ko sàggane ci misaal wala yenn alal yi am solo au lieu nga denc ko fu baax nga dem teg ko ca foo xam ne ku ñëw mën caa jot kooku yaa ko sàggane almuhim bokk na ci borom xam-xam di wax ma alal muhsinina min sabil te mooy képp koo xam ne rafetal na amul luñ koy topp amaa na képp koo xam ne dafa sàggan ku mel noonu da ngay gis na mën nañ ko topp mbokk loolu moo aju ci bunt yi nga xam ne dañ ko waroon a jël tey ñu ngi ñaan suñu borom yàlla nañu dëppale ngërëmam fi dunya wal axira wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ala kulli xaal mu ne doom yoo xam ne nii année bu ne dañuy dajaloo cotiser pour jàngal seen baay ay kaamil bokk lépp loo xam ne dafay doon ci luy jur njëriñ bokk na loo xam ne nii borom xam-xam yi dañ doon wax ñi ñi yàlla royloo te suñu borom moo tagg sahaaba yi am déet ne wallazina taba'uhum ñeneen topp ci njëkk ña ñu yàlla royloo di sahabatul kiram lépp loo xam ne daawuñu ko def ci diine ji ñun duñ ko def ci diine ji sahaaba yi seen i bàyyi dee nañu seen kanam kaamil bi ñun ci jëkk a jot amul benn sahaaba bu mas a woote ne kaay leen sama kër ñu dajale jàngal sama bàyyi kaamil musul am yonent bi musu koo digle yonent bi musu koo fekke yonent bi musu koo dégg loolu dafa dab lislaam ala kulli xaal seen bàyyi dafa faatu loolu la ñu nar a dajaloo nar a togg ñam yu neex a neex a neex jox ko gaa yi ñëw yendoo kii ay équipe kaamil ñu nar leen a fay lañ leen di fay nañ ko jël rek xool ay miskin ñu sarfal ko seen bàyyi ca ñaanal seen bàyyi wallahi loolu moo gën ci ñoom gën ci seen bàyyi mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah
ki nga xam kii moom dafa nekk jullit am mbokkam doomam wala jabaram wala bàyyam boo xam ne nekkul jullit ndax aussi bi sañ na ko ko
naam képp koo xamee ne nii da nga am mbokk boo xam ne du la donn ku mel noonu mën nga koo def wasiya sa bàyyi la du jullit sa frère la du jullit sa doom la du jullit ku mel noonu mën nga ko defal wasiya même bu doonte ne koo xam ne nii ba nga koy am amoo ko ci yoon te du doon mën nga ko defal wasiya képp koo xam ne du la doon mën nga ko defal wasiya la lislaam tere mooy daal képp koo xam ne day doon moom kenn du ko defal wasiya mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam allahuma bokk na ci liñ doon wax wàllu donnante yooyu bokk ci koo xam ne dafa murtad képp koo xam ne dafa murtad génn ci diini kooku dañ ne alalam dañ koy delloo trésor public kenn du ko jox ku murtat ne moom kenn du ko jox ab chrétien te bu fi jaasir ni islam ne ko ñun moom dañ koy rey loolu moom kon bokkul ci niti diine li ñuy wax niti diine mooy ñeneen ñi nga xam ne mosuñoo dugg ci lislaam mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah naam
dama mos a fekke benn événement xam ne dañ doon doonal ba kenn mais kii di gaañu dafa am ñaari jabar kenn ki doo am na ñeenti doom yu góor ki ci des amul doom ñooñu ne daf ko may une part benn partie ci kër gi daf ko daf ko waxoon dee nañ jël benn partie man fàttali naa sax ne kii nga xam ne dafay doon amul droit ñu defal ko wasi mais ñu ne bon pour ñu kii ko daal nee na dañ ko ko daf ko mayoon avant muy dee ci mën na may def waa ala kulli xaal ci li mu wax bu dee ni dañ doon miraas problème posé fa kii ñaari jabar la am kenn ki am na njaboot ki ci des amul ñu ne góor gi da ko mayoon genn wàll kër gi alors am ñu ne wasiye kenn du ko defal kuy donn ñu laa moom kat bi muy dund la ko ko mayoon ala kulli xaal bu dee ne bi muy dund la ko ko mayoon loole moom àq la boo xam ne lew na ko ca mooy waaj ko ko may kay la ñuy xool lu taxoon mu may ko ko su dee ba mu ko koy may jubluwu ci lu dul rafetal jubluwu ci mukk lor ay miraasam waaye jàpp ne ne kii wëllëreem la mën na nekk ab awam sax ñu sëy lu yàgg-yàgg amuñu doom kii ñëw fi barki démboo njaay am njaboot mu xam ne bis bu ma dee ci lu néew lay doon sama alal ndax sumun bi la ñuy jël séddale ko wat ci digg bi kon bu bàyyoon ay milliards it kii moo jël lépp mu xam ne kon kii du ma doon xaaral ma may ko lii loole moom ci ak dundam da ko koy may may goo xam ne bu ko neexoon léegi jël ko jaay ko am naa ay mbokk yu ma jege ba góor ga defee loolu soxna si moom dafa daal di jaay kër ga dem aji ji aji ji ci mag mi ngi noonu loole kon gis nañ ne lu mën a nekk la am maa nag bu doon testament la ko def ne bis bu ma deeyee nañ ko jox lii su boobaa moom kenn du ko ko jox lu dul xanaa doom yi doon doom yi majeur daal di dëppoo ci ne nañ def lu suñu bàyyi wax waaye sharia moom joxu ko ko wallahu aalam naam bismillah naam naam dafay def ñu naan ñaari Xadija moo mag suñu yeneen sallallahu alayhi wa sallam ay at.
waaw laajte loolu ñaata at la ko magoon ak beneen bi ci nit ndax mën na mën na am mën na def quatre pour protéger laaj suy liggéey ndax borom xam-xam yi dañ mën na
maanaam ci nit bu buy liggéey ndax mën waaw mën na sol kap waaw ala kulli xaal suñu yaay Xadija noonu nga ko déggee moo magoon suñu yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam la ëpp ci historien yi dañ ne mage woon ne ko 15 ans ca loolu seen aada ñoom du woon benn problème mi ngi noonu ci doomu aadama bi sëyëg koo xam ne da koo mag ci jigéen donte ne ñun suñu aada mën nañ koo ñaawlu lu dul jabar boo xam ne da nga koo donn xëy na ci say frère mais nit ki bu la magee yenn yi léeg-léeg da ngay am kersa di sëy ak moom waaye bu dee aada yi arab du woon dara islamit defu ko muy benn problème mi ngi noonu amma man mi liggéey sol benn kappar protégé wu ci naaj bi loolee dañ naan am na illa bu tax mi ngi noonu maa ngi gis léegi benn xale avant may ñëw mi ngi sol kap ma ne ko ana ban naaj ngay protégé léegi léegi mbokk jullit bi ñu noddee ba pare far mu posé question bi alamu almuhim mbokk kap du colug l'islam ku mel ne aljazairi yal na yàlla wattu ko léegi mu jógee téeméeri at ca li mu jàngale ci lislaam yàlla moo ko xam demoon na bay ñaanal képp ko indi kap ci dëkk yeneen bi alei salaam di ko jaay yal na yàlla def ko nangam ak nangam ndax mbokk doomi jullit yi bu ñu commencé bay soli kap mooy ay tubaab la ñuy doon dañu war jukkoy tubaab al kon bu dee ne yow ju yow mi liggéey ci naaj bi nga xam ne da ngay jàkkaarloog naaj nga sol kap bi pour mu protéger la bis boo paree lem dogal sa poche loole moom ma casque bi ngay sol loolu mooy yem mooy dafa am utilité bu tax xam ngeen kenn du toilette ba pare sol ab casque am di bëri ci mbedd yi déedéet loolu kap bi noonu rek la mën a doon mais bu dee daal pour toilette nañu xam ne colug yéeféer la du colug l'islam wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah waaleykum salaam wa rahmatullah
yeneen bi dañoo waxoon ni maanaam mooy xam-xam bi nga xam ne ni moom la ñuy njëkk a dindi ci xel dañu gis ni loolu dafa commencé feeñ ñu gis ñenn ci jeunesse bi dañ cee xaw a sànq ba ci programme bi nga xam ne ni moom lañ teg ci baccalauréat gisaguñ épreuve yoo xam ne ni moo ci génn léegi ndax gàttañ lu boobu mën ta jural jeunesse bi ci at yi di ñëw pour ñu am problème ko nga xam ne ni dana maîtriser mbir
la chaque année loolu fokk dana dana am moo dina ne xam-xamu diine yi day dañ benn par benn jaamu yàlla di dañ benn par benn bokk na la yeneen ci islam di wax li nit ñi jëkk a bàyyi mooy atte attewul islam tey ban julli ban dëkk mooy attewul islam mën nga ko wàññi ñaar ñetti dëkk da nga am na sax mooy attewul islam naka noonu it xam-xam yi diini yi noonu lay demee rawatina di nga xam ne mu ci gën a compliqué muy wàllu miraas allahuma nag yàlla def na ci yombal goo xam ne Parcelles Assainies gépp gépp gépp bu ñu amul kenn ko mën a miraas doy na ñu ngi noonu ca mooy fii ak nit ñi ñi ngi am bu ñu mënee am koo xam ne nii daañ dellu ci moom xayrun am maa nag ni muy tumuranke ñàkk a jàngal bi daañ dema dema dema dem ba nit ñi sax fàtte ne lislaam tëraloon na ak miraas ba lu bari ci nit ñi daanaka lu bari dañuy séddoo rawatina bi tribunaux yi nga xam ne dafa safaanoog njàngalem yàlla ak njàngalem yeneen ci alayhi salaatu wasalaam nga xam ne bépp jëli du wax laa ilaha illa muhammadu rasulullah do dagan ci moom abadan mu naan day dem tribunal séddal ko gannaaw bu mu xamee ne loolu attab taaxut la loolee kon wareef la ci bépp ndaw boo xam ne nii mën na dem di jàng loolu loolu fardul kifaaya la boo xam ne ñi koy féetewoo tuyaaba ju rëy dana leen ñeel ca loolu mbokk mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam yal na yàlla dëppe lañu ak ngërëmam xamal ñu suñu diine mu musal ñu ci ay fitna wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain